espace jeune Kalzo lañ ciy àndal comme chaque mercredi euh, waxtaanee marchand ambulant yi. waaw Pape comme ni nga ko waxee euh, bi ñuy tàmbali sànq espace jeune tey dafa intéressé wu ci ñi nga xam ni mooy marchand ambulant yi ñu seetlu bu baax ni euh, pratique bi ñi koy def la plupart ay xale lañu ay jeunes et puis gis ci maintenant âge ndaw de 10 à 15 ans maintenant euh, ñu seetluwaat également ñi nga xam ne dañuy jóge bitim réew di ko def jóge ci yeneen dëkk plutôt di ko def fii Sénégal bëri na Ndakaaru aussi la plupart ñi nekk ci mbedd mi di ko def dëkkuñu fii ñi ngi ci région yi mais li ko waral mooy jom ji nga xam ne yaa ngi koy wax si ñoom depuis sànq moo tax ñu koy def bugguñoo toog Euh, ñu doxantu dem xool reportage bi nga xam ne def na ko def nañ ko ci et ñu dellu soit ci plateau bi ñëwaat nañu ci seen espace jeune comme tous les mercredis matin ci seen télévision Futur Média tey jàngat bi nga xam ne moom la ñu def jëm ci emploi des jeunes ak li nga xam ne moom la ñu tuddee chômage maanaam ñàkkum xëy mi ñi naan Sénégal wutum liggéey bi dafa jafe dangay mel ni sax dëkkoo ci réew mi soo koy wut boo amul loxo bu gudd bu la mën a jàppalee mbur nga liggéey ndax société booy dugg kat foog nga xam fa kenn ci ndaw yooyu ñu dajal lii mooy seen kàddu. waaw jeunes yëpp am nañu euh, possibilité am liggéey mais à condition que day fekk ñu gëm seen bopp parce que nit ku nekk da nga war a mën a xalaat ni ëllëg da nga war a mën a euh, gérer sa foyer tranquillement sans autant di dépendre si benn doomu aadama nguur gi moom euh, soxlul ay base aussi nguur parce que nguur ka boo amulee branlo oto mun a dem. tapissier la mais doxul dox boobu noonu ak gars yi importé bi nii moo tax mu mujjee bàyyi tapissier bi dem di def livraison. moo tane quoi. nga changé liggéey quoi. moo changé liggéey. mais yomboon na la woon livreur boobu noonu la woon dama ci daloon nii. ci laa def huit mois nii mais métti na tali bi tamit ak policier yi métti na daal temps bi. nga bind par exemple demande pour ut liggéey. non doo ko defee duñ la jël sax jarul sax ngay sonal sa bopp affaire da mboq la léegi. waaye mu mel ni tamit jàng ba jeexal war liggéey problème la fi ñenn ñi sax xamuñu nu ñuy bindee demande ngir wuti liggéey ndax manque de formation bu doy la wala ñàkk xam la wala dañ dem sax ba jàpp ni ñun daal ci ay ndaw waruñoo am liggéey kii dafa jàng wàllum hôtel pare bëgg a donte sax am na waaye satisfaction moom amu ko ci. moo def formation bi deux ans Mbour génne si def stage euh, Kaffrine ma dem stage fii nii nu mu tuddati sax euh, Cap Skirring def stage trois mois mhm. soo a ñëw génn liggéey mais léegi da ngay gis sax ñu ne la kaay liggéey hôtel ñu lay fay ay sagaru trente mille franc nga jógee sa kër ñu fay ne yaa ngi fay soixante quinze mille franc wala yaa ngi fayeeku cent mille franc fekk naa après loolu du la jëriñ dara kenn ñu koy wax Babacar loo Ndiaye moom jot na yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ndaw ñi jëmale ko également ci nguur gi nga xam ne jàpp na ni mi ngi def ay effort ngir dimbali xale yi ñu am ay xëy. booy xool ba président Macky Sall ñëwee teg na fi ay mécanismes yu mel ne ANPEJ ANPEJ financé na ay ay ay ay ay projet mu jël aussi euh, lu mel ne FONGIP fonds de garantie. Euh, boo xam ne day accompagner les jeunes. voilà yéen a ko rectifier seen bopp sujet yi bokkul dañoo juum ci euh, tegin bi mais sotti ci ak def ci la ba tey euh, laale na ak euh, ndaw ñi xam naa élément bi nga xam ne ni Calze def na ko ci marchand ambulant yi on va y revenir bu ñu amul jot peut-être encore mercredi prochain mais lii itam am na solo ñu mësoon cee waxtaan tuuti mais baax na itam ñu commenter ci jëm ci chomage bi ak wutum liggéey gi xale yi nekkee fii Sénégal Calze. bien daanaka benn la parce que liggéey la. rek boo xam ne ndaw ñaa ngi koy wut ñenn ñi euh, ñi ñu koy wutee mooy comme ni ñu ko waxee ci reportage bi jàll léegi euh, jàng wut def ay formation dem uti liggéey des fois dañuy la ñuy def hmm. liggéey moo waral sax na euh, mu yóbbu leen ci mbedd mi ba ñu nekk ay marchand ambulant mais insécurité bi nga xam ne seetlu nañ ko ci rek moo ci xaw a doy waar parce que des fois dañuy nekk ci autoroute nationale bi nekk ci route nationale bi nga xamante ni des fois oto yi duñ leen di bàyyi xel te loolu dafay xaw a ndax ci biir reportage bi nga xam ne defoon nañ ko di wax ni xëy na bu ñu leen utaloon ay place yoo xam ne dinañ fa mën a jaay mu gën a am sécurité euh, beneen seetlu bi également mooy euh, ñi nga xam ne la plupart ñi koy def maintenant euh, dëkkuñu Sénégal mën na nekk su xëy na sous région bi la ñuy jógee que ce soit muy Gambie wala muy Mauritanie wala Mali ñëw Sénégal di ko fi def xëy na liggéey bi nag dafa nekk loo xam ne lu dox la ci wàllu économie également nguuru Sénégal waxoon ni que xool taxaw seetlu ni luy doxal économie bi la même su fekkee ni que ñoom dañ koy naqarlu ndax dañuy occuper des yoo xam ne day tax oto yi di am problème pour mana a circuler normalement donc loolu moo waral tey ñu taxawoon seetlu euh, ci li nga xam ne moo di euh, marchand ambulant yi ex waaw donc mu nekk lu excellent parce que boo koy xool marchand ambulant yi ñoom seen bopp euh, dañu nekk ci cette secteur informel. Mhm. ñu war leen euh, joxe coup de parce que tout simplement euh, ku ci nekk si ñoom am nga benn rêve. Mhm. boo war accomplir. Mhm. li métti ci li nga wax sànq moom mooy secteur informel bi la moom mooy il faut que ñu leen mu am ay mesures d'accompagnement. xamuñu jotuñu ci information yi. parfois aussi c'est bon comme ni nga def rek information bi jóge ci kaw. wàcc si ñoom. pour ñu mën a xam exactement que ne c'est structuré possible ñu mën a et puis c' possible ñu mën a am ay ligne de crédit yoo xam ne na ñoom dans l' ñu mën am soit magasin wala di voyager di jënd di jaay loolu mooy seen ambition comme ni mbagg boo gis bu ibbee ba boutique moo ci nekk voilà c' est ça exactement donc quasiment loolu ñu bëgg ah c' est donc d' une part moom laay wax tey Sénégal yi xaaruñu gouvernement ça quand même il faudra faut faut le dire parce que ñu ñu waaw waaw waaw da ngay xool xeebuñu parfois da nga si yore sax benn mouchoir taxaw parce que rien que loolu man jaral na ma jël suma poche ma jënd loolu mhm. parce que je me dis euh, je l'en faut ñun mhm. sénégalais yi ñoo mën a encourager suñu frères yi mhm. ñuy jënd ci ñoom li ñuy jaay bu demee ba mat dootul leen gisati euh, ci mbedd mi ñuy jaay bu boobaat nañ mën a am lu ñu amee boutique wala table di màgg jusqu'à avoir un grand magasin donc il est important aussi secteur informel bi la euh, ñu mën leen dimbali accompagner accompagner leen. Mhm. voilà wax jox leen seen àq ak yëleef ñoom it ñu mën a que non ñu bañ ñoo rek déggee piir leen noonu. Mhm, mhm. parce que day métti après yow mi sa bopp doo leen mën a promettre liggéey. wala ñu mën a am avenir bu wóor. te lu fi yàgg la fi lu lu yàgg la fi léegi maintenant parce que. marchand ambulant defe naa léegi foo dugg ci dëkk bi da nga koy gis et ça date depuis très longtemps. lu yàgg la fi en tout cas ay euh, jàmbaar la ñu ndongoloo ndeysaan woyoon na ko. Euh, ci albumam bu mujj euh, laataa muy dem marchand ambulant yi ñoom. ay ay ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu on va pas entrer dans les détails ci euh, dañ leen di déguerpir wala duñ leen déguerpir dëkk tam day am yoon euh, mm-hmm. bërëb day am yoon voilà y a des mm-hmm. règles faut respecter mais l'essentiel et de naka la koy waxee sax gëm ni ñoom ay euh, ay ay jàmbaar lañu parce que fajar la ñu yeewu jóg di jaay xam nga simis ñu jaay ceinture ñu jaay comme disait mm-hmm. donc yenn saa yi nga gis marchand ambulant buy jaay socc yenn saa yi ngay gis kuy dóor daqee di daw ci ñetti ci ci promotion soccu kuy jaay promotion soccu moom la ñuy promo. voilà tu as vu tu as vu donc on peut écouter li ci Ndongo Lo waxoon ndeysaan. xuloo dafa neex ne bu doon suñu sago dañu koy déglu ba mu jeex tàkk mais bon kalsa euh, tax ñu ibbi parenthèse boobu la tegaat woy bi nga xamante ni euh, ci album bi mu mujjee génne la avant mu doon dem donc mu doon ci woy marchand ambulant yi en tout cas euh, ñun ñu ngi leen di encouragé parce que ay jàmbaar lañu pour bien sûr Pape Cheikh ñu leen di encouragé bu baax loolu hommage la woon boo xam ne Ndongo Lo defoon na ko ci marchand ambulant yi ñu leen di ñaanal également ci li ñu nekk ndax ku ci ne ñoom dañoo gëm ci daan doole bi nga xam ne nekk nañ ko mm-hmm. booboog léegi bàyyiwuñu donc rendez-vous mercredi prochain Euh, certainement parce que kàddu yi ñu yëkkati dafa am solo dinañ ci dellu siwaat euh, pour xuus ci euh, métier mën nañ ko woowee noonu bi nga xam ne ci la ñu nekk muy liggéey bu métti également ñu leen di ñaanal yàlla jàppale lañ ci. voilà merci Kalz.